Imam Ahmadou Makhtar Kanté ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay ñu déglu ñëpp. ñu am mbégte dalal la ci matinalu réew mi ngir waxtaanee tey actualité bi fàttali ni yow imam nga ca mosquée bu Point E actualité bi kon mooy euh, association des euh, imams et oulémas du Sénégal ñi nga xam ne dañoo jël dogal ne euh, mbooleem jàkka yi na ci réew mi ñu mën caa dégg ñi bokk ci seen association boobu jàkka yooyu dañu koy tëj ba jëmmi jamono fekk lii di feebaru coronavirus dal di jóge ci réew mi décision boobu nag daal di jur werante gu rëy yow en tant que imam euh, noo ko jàngatee. dogal boobu dama ko rafetlu lool lool lool ndax dafa tegu ci xam-xam tegu ci charia euh, lu mu lu mu lu mu maye lu mu yoonal euh, dëppoo ak ulama yu mag yëpp ci àddina bi yëpp fi jàng gën a sori ci wàllu l'islam ak charia ulama yëpp dajaloon nañ génne ay fatwa yoo xam ni yëpp benn la amul benn wuute ci wax ne daggan na ñu tëj bërëbu jullikaay yi muy waxtu juróom muy euh, ajjuma euh, bu lor bu mel ni amee moo xam lor boo xam ne dafa jëm ci wàllu wér-gu-yaram comme feebar buy law wala lor bu jëm ci euh, maanaam ay ngelaw gu bari wala ay tremblement de terre wala sax affaire insécurité maanaam ay ay ay fitna bu bu indi nit ñi di di xeex ci seen biir loolu ku dem ci téere fiq yi da nga ko fekk mu fees fa dell balaa coronavirus kon du affaire coronavirus mooy tax nit ñi jéem a seet nu ñuy fexe ba dëppale ko ak loolu mais lu l'islam prévoiroon la bu yàgg léegi nag jullit yi ñoo ko war a jëfandikoo wax dëgg yàlla kon euh, dogal boobu lu ma rafetlu la di ñaan jullit yëpp ñu respecté dogal boobu euh, topp boobu dogal. d'accord Imaam wax nga ne fu fi ñu ko teg fu leer la ndax kon mën nga ñu ñëwal justement ci islam li mu wax euh, ci mbir yu mel nii ak xëy na ay exemple bu ñu ko mënee am. waaw xam nga l'islam lépp lu mu santaane. day fekk nit attan ko dèjà xam nga alxuraan wax na laa yukallifu llaahu nafsan illaa wusahaa yàlla du sant bakkan lu dul mu attan yàlla ku xakim la ko sage la ku xereñ la kon lu nekk nu mu koy defee xam na naka la nan la gën a baaxee nan la ñu gën a jigee waaye itam yàlla raxiim la de ku am yërmande ku yërëm la mm-hmm. kon na nga xam ne melokaan yooyu day feeñ ci lépp lu yàlla santaane yërmandeem ak xikmaam kon lu yàlla santaane rek bu ko nit attanutul da koy teggil jëlal koor boo demee ba feebar wala ngay tukki wala jigéen ëmb wala nga mage loolu dañ lay wax na kon léegi defee ko ni parce que jubluwaay du pour nga def ko pour faatu mm-hmm. jëlal aj màkka bu fekkee am nga alal bi am wér-gu-yaram te yoon bi euh, am fitna dañ naan la bul dem bu fekkee ni amoo wér-gu-yaram dañ naan la bul dem azaka il faut nga am ni nisaab pour génne ko euh, jàngale boo gis santaane boo gis boo demee ba attandoo ko jëlal julli boo demee ba mag loolu wala nga ngay miir ñu ne la toogal wala nga feebar ñu ne la tëddal kon santaane bu yàlla sant doomu aadama rek euh, nam ko attanee la koy defee lu jëm nag ci julli mbooloo euh, boo demee ba nga xam ni euh, yoon amul wala am na fitna bu am day maye charia ne toog leen seen kër parce que jubluwaay bi du dee ci mbedd bi wala ci yoon bi ndax dama doon dem jumaa jubluwaay julli jumaa mooy dajeek say mbokk foofu ci jàmm ngeen laamiso ngeen julli déglu xutba ñaan jàng alquran loolu mooy jubluwaay bi kon nag léegi loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamee ni Ibn Abbas euh, ci jamonoom Eh, ngelaw bari na taw bari mu ne noddkat bi boo eggee ba ci xay yàlla salaa ñëw leen julli da nga wax sallu fi bu buyutikum julli leen seen i kër ñi nekk ci wet bi mel na ñu am jeexi jaaxa mu ne ah su ngeen ma ci wóoruwul de man de toog naa yonent bi def ko xadis boobu ñuy fatwaa ci àdduna bi yëpp boroom xam-xam yëpp <clears throat> nangu nañu xadis bu wér la kon war na ci mën a eh, jëfandikoo kon xëy na dafa am ñoo xam ne ñoo gën a xam yonent bi luy jàkka xëy na dafa ñoo xam ne ñoo gën a xam yonent bi ne eh, buñ demul ci jàkka duñu wér ci feebar xëy na kon yonent bi dafa ñàkk yërmande moo tax mu waxoon ñu jul leen seen kër kon nañ teg yëf ci yoon euh, tiit ak euh, jaay dama gëm yàlla euh, mën na indi réer kon nag nañ teg lépp ci yoon kon wax dëgg yàlla am nañ lu mat sëkk ci biir chariatul islam boo demee ki téere fiq yëpp dañ naan la bokk na ci sartu juma mooy bu fekkee da ragal ne boo demee ñu faagaagal sa kër jël sa alal wala sa njaboot wala feebar nga loolu ngant la pour bañ a julli juma loolu mi ngi ci téere fiq te boobu temps kon daal ci gàttal am na yeneen tegtal sax yoo xam ne mën nañ ko ci am. d'accord mais ñenn ci ñi nga xam ne xëy na ñooy diingat boobu décision dañoo jàpp ne yeggaguñu foofu benn te itam jàkka yi mënoon nañ ko organiser ñu fa ndax bus yi nit ñaa ngi continuer di ci dugg marché yi aussi nit ñaa ngi continuer di ci dem te ñu jàpp ne jàkka yi ëpp njariñ loola yépp ndax ànd nga ci boobu raisonnement. islam dafa bëgg koy wax nga wax fi sa xam-xam toll ak li nga xam alquran wax na laa taqfu maa laysa bika maa laysa bi wax ci loo xam ne xamuloo ko ñiy wax loolu est-ce que ay médecins lañ est-ce que ñoom ñoo yore tey statistiques yi ba xam fi population bi toll mais guvernement bu toll ne fii am na yoo xam ne sax da koy nëbb te mu jaadu parce que am na yoo xam ne su ko waxee ñi xamul ak jaxasoo bi day yàq lu ëpp lu mu nar a defar réew yëpp da koy am boo demee tey ci archive pays adduna bi yëpp am na loo wax ne buñ ko génnee tey da nga naan lu tax waxuñ ko woon ca jamono jooju te mën na nekk parce que jubluwaay du tiital nit ñi mais jubluwaay mooy fexe ba euh, feebar bi bañ a kon nag léegi ñiy wax loolu naan tollooguñ fa ñu ci xam léegi pour ñoom toll nañ fa rek mooy gis ay nit dee ci mbedd yi comme niñ koy waxee ñun ci wolof fii Sénégal euh, euh, wolof balaa muy nangu ne feebar nga rek ngay onk di yuuxu ci sa kaw la ñu doog ne nañ ko jaga jaga di yóbbu hôpital ah kon nag léegi ñiy wax loolu fan lañ ko teg experts yi ñoom nee nañu risque bi toll na foo xam ni tey jii ñu ngi ci quarante cas daanaka presque léegi chaque jour ñu am ay cas yu bees te kaa boo gis bul xam ñaata cas la parce que cas boo gis fa mu jot a dem bul xam ñaata la fa wàll te nit ki mën na am feebar bi toog fukki fan ak juróom te du feeñ ci moom diggante boobu yëpp fukki fan ak juróom fépp fu mën a dugg mën na ko wàll ay nit kon ñi wax naan eggu fa est-ce que ñoom am nañu xam-xam ci loolu man mi jàng tuuti biologie xam naa loolu leer na ci sama bopp kon nag tey jii benn ki ngay dajal tey ci marché bi ci jàkka jëpp ni mën na ko am sax te te feeñagul ci moom mu bàyyi la ko nga dem jox ko sa njaboot dem jox ko itam keneen ak keneen nit ñi naan waaw nu mu demee nii parce que nit ñi dañu foog dañ koy wàññi benn par benn ñaar par ñaar du loolu ci xam-xam la tegu kon nag léegi loolu benn la ñaareel ba mooy fagaru daal bul ci xar kenn ñeneen ñi defuñ ko lu tax man ma koy def déedéet au contraire imaam yi sax ak jàkka mën nañ joxe sax misaal bu rafet daan na gis nga ñun ñi def nañ ko euh, waaye kon yéen itam def leen ko ñetteel ba mooy gouvernement da koy jéem a def benn par benn ni mu ko attanee rek tey jii est-ce que gouvernement Sénégal mën na yeewu tey rek daal ne bu kenn demati ci marché yi bu kenn dugg ci oto yi te tey sénégalais euh, bis bu nekk daanaka euh, lay wut la mu dundee bokk ñu réew yu am doole nga xam ne tey ji am nga sa compte banque wala am nga sécurité sociale wala am nga indemnité yoo xam ni tey euh, am na réew yoo xam ni da ngay toog sa kër sax ñu fay la ay Norvège ak ay Scandinavie parce que dañu am dañoo toll foofu ci solidarité sociale mais Sénégal tey jii 2000 francs am na koo xam ne bis bu nekk lay jéem a dàq 1000 francs 2000 francs kooku soo ko nee léegi toogal sa kër bul génn bul dugg ci oto dem ah est-ce que dana dana dana sotti marché yi tamit nit ñi amuñu ñëpp frigo fu ñu mën a def loo xam ne mën nañ ko lekk une semaine euh, ak sunu njaboot yi nu mu yaatoo et cetera kon lu mel noonu li ma wóor ba wóor mooy gouvernement bi ñu ci ciy bàyyi xel di seet nan lañ koy euh, nan lañ koy lijjante kon bu buñ fi nekk di di jaxase nañ jéem a seet ku nekk loo mën a wàññi ci sa wàll ci dajale nit ñi ah rek nga def ko Euh, ba seet ñeneen itam lu ñuy def. Mhm. mais ñeneen ñi defuñ ko man du ma ko def loolu moom du wax. imam ñu bari ci réew mi ñu ëpp ay jullit lañu euh, kon ñu wax ci jullit yi bu mbir yu mel ni amee lan la ñu sant euh, ki nga xam ne jullit la ngir mu def ko. liñ ko sant mooy mu dal wala ci ci yonent bi sallallahu waaw liñ ko sant mooy mu dal déglu borom xam-xam yi ci ñaari wàll mooy déjà ñi xam mbiru feebar bi luñ ko ci wax na leen ci wóolu parce que ñoo ko jàng xam ko. nit du nekk virologue lu dul fekk jàng na au moins dix ans ginnaaw bu mu amee bag def médecine générale ba pare defar spécialisation loolu du ay caaxaan boobu temps yaa ngi toog fay di seetaan sa télé di naan sa ataay di xaqataay lu ñu wax nga weddi te jàngoo ko jullit dèjà du mel noonu jullit day sérieux ah di wax ci lu mu xam te nangul ñi xam seen xam topp leen ci kooku mooy côté côté médecine bi mais nekk fi naan feebar bi amul ak tubaab yee ko créé nangam ak nangam loolu ay caaxaan ñàkk responsabilité la beneen bi mooy ci wàllu borom xam-xamu diine yi yow nekki nekkee jullit euh, ña nekk ay ulema jàng ay ati at euh, l'islam bi charia bi sunna bi yow nga yeewu suba rek bëgg nekk sa borom xam-xamu bopp lu ñu wax nga weddi lu ñu wax nga ne nangam ak nangam dugg ci google bi jël ay kii ay français yu kenn xamul di di wax te ay ulema nekk ay ati at di jàng kon ñoom tam nga wóolu leen ci seen xam-xam kon nag loolu mooy li njëkk a war a nekk dal wóolu borom xam yi ci wàll bu nekk ñaareel ba mooy. ñu tuub dellu ci yàlla subhanahu wa taala parce que musiba bu ñëw alquran nee nañu seen loxo mi ci biir wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yaafu an kasir borom bi nee na musiba bu leen dal seen loxo ngi ci biir te sax yàlla daf leen baal lu bari maanaam li ngeen yàq yëpp di di di ki def ci ay caaxaan di bàkkaar bu yàlla bàyyi woon lépp tuurwaat seen kaw sax du du ngeen fi toog di ko waxtaane mais daf leen a baal leen li pour lan pour ngeen ximbinu ko kon lii tam a yee pour ñu tegaat ci yoon delluwaat ci jaamu yàlla wéetal ko waaye tam defar suñu diggante yi bàyyi tooñante bi ak lépp luy gàddu ak kon loolu la jullit bi war a jàngee ci mbir mi waaye nag dolli ci fagaru ak fegu ndax yéen sa salaam ci boppam ku fiy jaay gëm yàlla ak foog ma julli jàkk yi par force nangam falaay laay nangam nangam yéen sa salaam moo la gën a xam loolu moo la jàngal jàkk moo tabax jàkk Madina jàngal ñu ko ñun ñëpp waaye moom moo leen ne foo dégg feebar bi eh, ña fa nekk bul génn ku fa nekkul bul dugg loolu mooy prévention alquran wax xudu xidrakum na ngeen jël seen précaution na ngeen fagaru kon nag léegi fagaru bi tam ci la bokk mais nañu ñaan rek li ci def ñu bàyyi koog yàlla loolu nekkul respecter l'islam ak li sa bi sallam wax kon nag nañu boole yooyu yëpp nañu boole tuub bi jàngat bu baax lii ñu dal lan la ñu génn ci bu baax set ci becc jubóog yàlla subhanahu wa taala jubóog suñu bopp jubóog suñu nawle moroomu nit juróom sax ak gàncax yi polition bi ñu arrêté ko tooñ bi ñu arrêté ko ak lépp waaye tamit ñu euh, ànd ak euh, dal dégg nga euh, tey tey tey nag dégg nga prévention bi li mu laaj yëpp ci cet ci raxas loxo ba mu set wecc moytu jaxasoo bu bari bi ak laamisoo bi di génn fekk rek soxla moo tax euh, ak ay farata loolu yëpp ñu def ko suñ kéem kattan bu boobaa nag yàlla xam ne ñun nag dem nañ ba sës li ñu mën yëpp def nañ ko yàlla mottali ñu li nga xam ne mënul ñu ko suñu bopp. Mhm. imaam réew mi ñu nekk itam réew la moo xam ni kilifa diine yi am nañ fi wàll wu rëy ñu bari sax dañ doon sàkku ci imaam yi euh, ci xutba yi ñu daal di ci yee nit ñi soññi leen ci ci fegu geek euh, yu ci aju ngir mucc ci jàngoro ji waaye tey gannaaw julli ji mbooloo amatul daanaka ci lu bari lan moo war a nekk ak fan la imaam yi war a mën a jaar ba def seen rôle. waaw xam nga lu nekk rek lu mu laaj rek islam indil ci li nga ci soxla. bu ko defee bu fekkee am nga euh, fursa maanaam occasion nekk ci jàkka di wax nga jëfandikoo euh, nu jàkka ji bu fekkee nag lor am na ba nit ñi ñëwatuñ ci jàkka ji nga jëfandikoo leneen loo xam ne jamono indi na ko lii moo tax gis nga julli di saa su ne jamono di leen raw gis nga bi internet commencé ñu ne yëfu yahud yi la nangam ak nangam mbiru iblis la nangam ak nangam euh, ba léegi ñu raw ñi ci lu bëree bëri imprimerie bi muy doog a commencé itam noonu la woon ñu ne waaw nangam nangam la Euh, tubaab yi développé ko euh, développé xam-xam raw ñu si donc yu mel noonu. yow mi sax internet yenn saa ñu xaw la cee sànni ay xeer. waaw man mii man mii lu nekk wax nañ ma ko ci imam Kanté imam deux point imam Buzz ah magum jëmm ay njabootam nekk ci Facebook bi lu hmm, hmm. nekk dégg naa ko ci. lu ne laa la wax lu doy war sax mais euh, tey ji ñu bëri tey ci ci Facebook la ñuy la ñu amee sama numéro fii lañ may woo WhatsApp di ma wax sax des fois ay problèmes yu compliqué ci seen njaboot wala ay mbir ma leen ci wax sama kéem kattan bu ma dugguloon ci loolu ba ñu xamee ma ci euh, du duñu mën a jokkoo ak man kon nag euh, ñuy wax Facebook mbedd la ma ne waaw mais mbedd sax man nga ci gindi nit mbedd sax mën nga cee gindi nit yow koy wax ci lu baax rek ak luy gindi nit su ko defee te mbedd ma nga xam ne tam léegi ñëpp fa lañ nekk boo demul wax ak ñoom foofu nooy wax ak ñoom yonent yi dañ doon dem ci penc yi di wax ak ñi yéen bi sasan da dem ci marché yi di wax ba ba ba ba noonam yi sax bëgg nit ñi xeeb ko ñu naan leen yonent boo xam ne day nekk ci marché yi fii di wax kii ngeen ne yonent la bu doon borom daraja dafa day toog fu sedd malaaka yi wër koog laaf dañ dañ dañ ko dañ dañ ko doon tooñee yonent bi daf doon dox ak ay padam njaxitam ci marché yi di wax ak penc bi hmm. yonent boo gis mu am problème dafa demoon ci penc bi moo tax bu toogoon ci biir këram euh, du fa am problème kon nag léegi nañ dem ci fa penc ma nekk léegi mooy mooy ci Facebook bi ci WhatsApp et cetera néew ma ko fa loolu moom imaam yu xam nañ ko hmm. bu bu say farata jotee nga nga dox ko si kéem kattan et cetera kon nag léegi nañu utiliser yeneen yoon yëpp ba pare man gis naa ne tey fi mu nekk ni Sénégal moom télé ak rajo manqué wul temps pour l'islam moom déedéet loolu moom manqué wu ko fi mu nekk nii kay li fi des mooy kuñ fa jox temps oustaz imam na nga fexe ba wax loo xam ni ci charia la tegu nga wax te yàlla tax nga wax te bàyyi wanewu bi nga wax luy jëriñ nit ñi nga wax lu dëggu mais temps moom ak fu ñuy waxee moom manqué wul fi nekk nii. te loola mën naa jur njariñ ci sa xalaat wax ji. bu baax a baax te dafa war a jur njëriñ parce que lépp loo xam ni sellal nañ ko teg ko ci yoon dafay jur njëriñ parce que euh, bu fekkee ni euh, def dara ak ñàkk koo def benn la kon lan la ñuy def ci kaw suuf def lu rafet moo ñu indi ci kaw suuf bu fekkee def ak ñàkk def benn la kon nag lu ñuy def ci kaw suuf kon nag jéemal ba li ngay def rek nga teg ko ci yoon euh, te wut ci ngërmande yàlla ak luy sauver askan bi parce que imam bu nekk kullukum ra'in c'est un berger. Hmm. dafa war a euh, euh, jiite euh, njabootam. askan bi ba pare eh, di leen jox ay tegtal. ci fi ñu war a teg seen tànk. jërëjëf imam Ahmadou Mactar Kanté amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu réew mi. tabaarkalla ñoo ko bokk maa ngi nuyu ñëpp foofu. jërëjëf imam.